di xaar yàq lay doon wala yokk yàq wala gën a xóotal yàq fa yu génn ñun yàlla baaxe nañu ci liñ bokk mu yoonu Sëñ Tuuba liñ bokk muy Sénégal liñ bokk muy gën liggéey liñ bokk mooy defar Sénégal liñ bokk muy gën dëgg gën borom bi óolu ko te bañ jël place borom teg fa benn doomu aadama ak koo mën a doon ak lu ñu la mën a dénk te mu nekk luy jeex waxatuma la ak politicien ak loo mën a doon ak foo mën la ci baaxam mu yàlla baaxee ko borom expérience ak jaar-jaar bu tànn ci yoonu Sëriñ Tuuba waar woo xam ne ni mooy defar jikko defar ndaw ñi ci réew moo xam ne téeméer yooyu jël juróom lu ko ëpp ay ndaw lañu bu loolu baaxee rek lépp mën na baax ma am chance nekkoon ndaw ministre bi jiite ndaw ñi suma kilifa suma wasila Ablaye Wade njëkk maa ngi daw ne xale bu ndaw le 31 décembre waxtu wu xale yi di noosee stade bu fees teg kilifa gu mel nii di fa defee doomu aadama ma gis fa muy ma doy kéemtaan wax ko suma kilifa mu ne ma royukaay la ku gën a war a seetaan la ku war a gën a war a tàpp la ku gën a war a déglu la ku bëgg a mucc bëgg a sooy sama kilifa ci politique teg ma loolu fa la xamee ba tàmbalee ba tey jii ñu découvrir ñun mu nekk koo xam ne ni dafa am yéene xam nga ñu wax débat relève ma gis ci moom tabe bu mel ni luy defar ndaw loolu laa gis ci sunu wëstéer yi sëñ Abdou bi nga xam ne aussi ñëpp xamam ci coonoom ci defar ndaw ci tegtal guidé li mu jàppale war naa mën a defar ñu taxawal parti oolu na ma seet naa ko di dox mbokk dox taxu taal taalibe xaritoo ñu waxtaan ci tollaayu réew mi ñu bokk ci gis-gis bokk ci gëm-gëm liy defar Sénégal ma jànge politique ci yoonu libéralisme que ma jàngal ma nampee ci moom te du ma gàll ma nampee ci muy Ablaye Wade teel ñuy joxoñ dam nekk gëstukat la voie mouride du développement da ciy bind article ci titre ba sax beneen la waaye dafa wane rek yoonu mouride tegtalu Serigne Touba ci modèle bi mu wane ak bi mu jur amul ñuy importer ay concepts ku wax ne libéralisme keynésianisme utilitariste dangam jog maanaam quinze ak nangam nangam fekk lépp li ci biir réew mi man gëstu samay bind samay xool da ngay gëm ne war a mën dem Sénégal ba am ay universités yoo xam ne ni même fay jàngale leen da nga fay am ay faculté wala ay département yu am théologie appliquée au développement njàngale Sëñ Touba njàngale suñuy kilifa diine nga xam ne ni seen xam-xam xóot na wees raw am vision boo xam ne moo tax dañuy jàngal ci suñu daara yu xooy yi di ko jéggaani bitim réew buñ ci sukkandikoo mottale ko ko aada ak suñu gëm-gëm Sénégal mën a jëm kanam ci loo xam ne du naka saayal suñu gëm-gëm ak suñu taxawaay beneen ba ñu bokk vision ci loo xam ne ni kaso amul place ci réew bu nekk rek yàq la gën a def man su ma téye ci bind mu ëpp lu ma juree ci kanam dañu war a soppi kaso remplacé ko pay ay centre de correction wala de redressement civique yoo xam ne bala ngay jël rëbës di def ñetti junniy nit ci condition exécrable nga dem ca tool ya Anambé wala Vallée du Fleuve Sénégal wala centre def fa ay hectares yi hectares def ko ay centre yoo xam ne bu ñu ko fay junniy nit ñoo xam ne ku fa dugg mën fa métier mën fa liggéey yokk koom-koomu Sénégal ñu ubbil ko compte bancaire ci banque agricole mu ngi liggéey balay génn yóbbaale loo xam ne ni bu génnee mën ko liggéeyee la des ñu koy fayee la nga xam ne ni mooy dimbali nga foofu beneen ba ñu koy yokkee ci lay yor wàllu yoon ba pare ñu am yéen ay gëm ne boo defee ay centres civiques régionaux def ay centre de correction civique ci biir réew mi ñu teg ca loola jël ndaw ñooñu liggéey noonu jàng leen métier ku ca dugg ci njumte boo génnee defar defaru defaraat teg ca yoon defar ñu bokk vision boobu ñu gëm aussi comme que bu Sénégal waruñu toll fi ñu jéggaane tey ay meew di jéggaani ay yàpp suuf si nekk fi ku gëm xelkom gis la fa ne xaalis bu ñu ko tasaaree Sénégal yëpp koom-koom am fi jàmm am fi donc suñu waxtaan dafa ñooy da koo lal ëmb ko ñu wax ma yéenam bëgg-bëggam ak am naqar gu mu am te ñu bokk ko ci tolluwaay yi nga xam ne politique politicienne par parloo ñoŋaalu bañ a bàyyi ak xëcc façon bu ne bëgg na saa suuf ba ñu fi ak féewala boo xam ne tey mbañwal ci si waaso mbañwal ci. ci cosaan mbañeel ci foo dëkk mbañeel ci foo far mi ngi commencé di daana di màbbal ca lu mbaaru Sénégal mooy li am tiit ak xuppaange ak jàpp ne ñu mën naa fexe fexe bu raw pexe borom bi eñu fi nekk ni moytu ak tiit ba ko bëgg ne tekk na ngi ragal ak daan jël sa kaw yetu kel nag ko soppi nguur mu mujj wadd say loxo kenn jël ko sa kaw rek man du ma dugg mais sëñ bi bi waxtaanee gis naa ci moom lu raw la ma foogoon ak la nekkoon Sénégal dañuy wax te duñu xam bala ngay tudd mbir da laaj te gëstu ko xam ko ku bëgg réew mi la. ku bëgg Sénégal la ku bëgg Afrique bu njëkkee toog baat bi gën a tëjjee ginnaaw sëñ Touba ak yoonam mooy le réalisme africain. lan la laaj ko Sénégal jéggaan. mënta yoru kër jéggaan mënta yàggalu sàq da ngay defer deferu deferle di ah, bokk loolu moo nekk calumbaaru li ñu àndee tey ji ma dellu woote ndaje samedi bi passé suñu parti onze heures ba cinq heures ca ngoon responsable yëpp ñu waxtaanee ci ñu jéegal ñu maître Abdoulaye Ndiaye di avocat bi porte-parole parti bi Moustapha Mballo responsable Vélingara ñu ànd li may wax ñëpp a ñëw jël ko ne jub kàddu ne ma dooloo li ngeen di jël ak fu ngeen dugg parce que Sénégal li koy defar li ñuy wax fii booy seen waxtaan suñu xel dal na ci loolu. loolu la weesoo man sama ci moom sama kultu xam nga nit loolu sa sumbal rek booy jullit jiitalal xol bu laab yéene ak gëm-gëm. sëñ bi man en xam naa ne ku bëgg Sénégal mm. xam naa ne ki nga xam ne bëgg Sénégal nga. xam naa ne say jëfin ànd naag jël ndaw def ko luy saafara bañ koo def jafe-jafe. mooy le jeune est une solution et non pas un problème. tant que ñu koy def problème rek réew mi du avancé. li des ñu ko après. moom moom moom bés bi. moo la war a déglu. waaye sëñ bi nga jàpp ne combat pour Sénégal. Mm-hmm. combat pour Afrique. Mm-hmm. man dama bokk ci doomu baadoo li nga xam ne ni li ma réew mi defal mën ma ko ko fay. Mm-hmm. sama bakkan bu ci ma ñàkk ci sama liberté loolu sax asaka la ci la ma war a defal réew ca lan ma defal te gënuma samay morom gënuma leen ci lenn te ku ma xam ne tey séen na te ma waroon réew ci léegi ñaxee ci àll ba kon combat bi on le mènera ensemble ñoo ngi di gërëm di di ñaan tous les sénégalais ñu ngi ko nga liggéey di wax yëpp nag di diisoo tous les sénégalais nañu fekk si lii nii ñu nekk fa ngeen am lu leen naqari tey ragal ku leen xupp wala ku leen teg daal wala ñàkk la ñu yor nañ xam ne yàlla rek mooy joxe suñ tubaab mooy joxe kóolu ñax mooy joxe nañu fekk si liggéey ci voilà jërëjëf léegi dañuy jox kàddu bi